mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu auditeur auditrice euh, yi nga xamante si yéen a ngi wéy di ànd ak seen site bu mag bi di waar wi TV amaan nañ bi ak kontante fas yéene teewaat fii ànd ak yéen ci émission bu am solo bii nga xamante si rek euh, mooy seen émission métier yi mbokk yi tey jii ñu fas yéene teewaat fii ci studio waar wi TV fas yéene am suñu gan ñu dalal ko jaajëfal ko ci kanam tuuti incha allah rabbi di ko ñaanal suñu borom defal ko tawféex. waaye balay boobu rek ñuy nii bu baax a baax xalifa général di Mouride Chahibul Fadila Serigne Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu tànn ko wér waaye di ñaanal bu baax a ki nga xamante si rek mooy Serigne Amdi Modou Mbène Fall mi nga xamante si moo fi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fallou Karim di ñaan suñu borom mu yàggal ko fii te ànd ko wér waaye di nuyu ak ziar di ñaanal bu baax a baax ba euh, Bassirou Abdou Khader mi nga xam ne moo yor kàddu njabootu euh, mboolem yoonu murit wi di ñaan suñu borom mu yàggal leen fi ca ànd ko wér waaye di dem ba Daaru Moxti di ñaanal baax baax sëriñ Bassirou Anta Niang mi nga xam ne moo fi toog jotaayu maam Thierno Birahim Daamal Daaru di ñaan suñu borom mu yàggal ko fii waaye di ñaanal baax baax sëriñ Bass Abdou Khoudous nga xam ne mooy mooy porte parole ku njabootu borom daaru di nuyu sama xarit ba soppee ba moom moomee sëriñ Khalid Mbacke mu borom daaru Moxti waaye di ñaanal bu baax a baax sama wasila sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ bu Boussa Dieng di ñaan yàlla yàggal ko fii tam ànd ak wér mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ci di leen di am mbégte ak kontaan tey fas yéene dalal tey kenn ci ñi nga xamante si rek ñoo yëngu ci li nga xamante si moo di métier mi di métier moo tailleur Serigne Abdoulaye Thiam ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom defal ko tawféex xam ngeen ni euh, jataay bi jamono yii kenn ku ci nekk xam na ni métier yi rawatina nag li nga xam ne moo di tailleur yi euh, temps amul fenn waaye nag ñu fës yéene rek saa su nekk di leen indil ay émission yoo xamante si rek fii rek ngeen ko mën a amee ci seen site bu mag bii di waar wi TV Serigne Bassirou Sylla moo nekkee ca technique ba ñu koy jaajëfal bu baax a baax di nuyu bu baax a baax suñu caméraman ki nga xamante si mooy Serigne Alsane Sano ñu koy ñaan a baax suñu borom defal ko tawfeex Serigne Abdoulaye Thiam ñu ngi lay nuyu dina la dina wax dalal jàmm ci site bu mag bi di waar wi TV. waaw sëñ Thiam ñu ngi ziar bu baax a baax a baax di mm. nuyu téléspectateurs yi waar wi TV yëpp rawatina nuyu sama kiliyaay mm-hmm. sama emprunté yi mm-hmm. maa ngi nuyu ñëpp di am contentement ci dalal bi mm-hmm. waaw macha allah. jërëjëf sëriñ Abdou Lahat Thiam ci kàddu yu am solo yooyu nuyoo bi jot na jotal na sell na macha allah di nuyu bu baax a baax mboolem auditeurs yi waar wi TV fu waay mën a nekk rek ñu nekk ci monde bi rawatina ñi nga xamante si rek ñoo nekkee ci diaspora bi fu waay mën a nekk rek jamono ji ñu ngi lay nuyu bu baax a baax te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan. mu mel ni ñu ngi waajal li nga xamante si moo di bis bu sell bi nga xamante si rek moo di ay eh, bis bisu tabaski di ñaan ñu yegg ci jàmm ci fekke ko ca talko ko ca yàlla yombal lépp ci barke Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul eh, sëriñ Abdou Lahat ginnaaw nuyoo bee ziar bi xam naa dañuy jëkkanteeg waxtu yi forcément na xam naa <laughs> jotaay temps bi moom xaw naa jafe <laughs> tey ku bëgg na xam sëriñ ab Lahat Thiam fu mu cosaanoo loo koy wax waa sëriñ Abdou Lahat Thiam mi ngi cosaanoo dëkk bu ñuy wax Njalba Njalba waa ci côté Thiel Maxa. Njàll ba ci yoonu Thiel waaw mu ne nag Touba laa ci saanoo boobu. mais hmm. man Touba laa ndax foofu nga jàngi métier wala foofu jot a jàng. non fii laa jàng Touba. fii nga jàng laa métier fii laa jàng métier kon daal mën nañ ni carrière bi lu jëpp fii nga ko defee. waaw lépp fii laa ko def man moom sama lépp Touba la. Ah, ah. <laughs> Euh, ku bëggoon a xam tey sëñ Abdou Lahat euh, maanaam métier bi euh, diirub li nga ko jàng ñaata at nga ko jàng. waaw yàgg naa ci moom. yàgg nga ci yàgg naa ci parce que 2004 ba léegi maa ngi waaw 2004 ba léegi 2004 nga ci tàmbali woon. waaw 2004 laa ci tàmbali woon. ba jamono ji ba jamono ji maa ngi ci mm-hmm. euh, tey jii mu mel ni nga créé lu mel ni maam yore lu mel ni benn place yore ay emprunté. Euh, tey place bi mu mel ni yaa ngi ko tuddee. bala may sa couture lan moo la motiver ba nga tuddee place bi noonu. waaw xam nga ñun ay doomi bala may sa laaj. Ah. te yàlla dogal ñu bëgg lu baax. Mm-hmm. bala may sa koo xam xam ko ci lu rafet. macha allah tuddee suñu bopp bala may sa ko mhm. te wax dëgg yàlla réccuwuñ ko tamit mhm. waaw parce que am na ay client bala may sa am na client fu nekk mhm. mais nag bala may sa couture moom doo la dina muy loo xamante su lu ngeen dund la waaw ay bala may sa lan moo tax macha allah suñu lépp bala may sa la waaw waaye nag teewul am na suñu client fu nekk macha allah loolu am na solo nee nañ euh, lenn lu nekk rek day am lu muy nataal d'abord ah, euh, kon loolu am na solo euh, tey jii ñu gis ni sëñ Abdou Lahat yi léegi bari na ay jafe-jafe yoo xamante ne si ci faral di am la mu mel ni xale yi kenn ku ci nekk gis na ni daanaka jàngatuñu métier ba buñ ko jàngee nañ ko war a pratiquer dëgg-dëgg maanaam demeetul moom. waaw ah, loolu moom dëgg la moom. mais nag maanaam nit ki ak lu mu doon lépp loo dugg rek naa la ci bëgg-bëgg dugal. Mm. parce que ñun métier bi moom yàlla daa dogal même suñ ci amul dara sax bëgg-bëgg bi ñun suñ liggéeyee nit mu rafet rek même su xaalis bi bëriwul sax suñ xol day seede daanaka bëgg daal mooñ ci gën a bàyyi ba nii may waxee yow bëgg gi bu ma juumal ñin ci duggandoo lool ñi ci ëpp bàyyi nañu hmm. mais ñun moom ba léegi bëgg gi moo ñëwoon ci bàyyi hmm. waaw ñu ci sant yàlla nag parce que formé nañ ci ay booy yu bari yoo xam si ne instant yi yor nañ seen atelier di liggéey hmm. ñi génn nañ ñu ngi liggéey fu ñu dem dañuy liggéey waaw di ci sant bu baax nag sama patron bi nga xam moo ma jàngal métier muy xaadim xaadim maa ngi koy sant bu baax a baax parce que def na ci man lu rëy saa yi nii amul fenn ku may dem àdduna ci métier mi ñu may xeeb mm-hmm. te lépp moom la macha allah waaw maa ngi koy sant bu baax a baax waaw mm-hmm. tey ji ñu gis ni maanaam xale yi euh, bu fekkoon tey en tant que patron de métier tey bu fekkoon am na message boo xamante si yaa ngi ko yëkkati jëme ko ci ñi nga xam ne mooy xale yi parents yi dañuy wax ba sonn daanaka ku ci jàngi boo génnee tuuti rek bu ñu dugalee ci métier bala ngaa dox tuuti yàq sa métier nekk ci yeneen. waaw métier moom yombul. Hmm. képp ku la ko yombalal moo la ko xaaj. Hmm. parce que métier surtout métier tailleur. Hmm. métier tailleur moom ku yombalal moo xaaj parce que à tout le temps ay modèles yu bees mooy génn. te loolu xel moo koy def. li nga jàng rek du doy boo paree da nga utiliser woo sa xel. waaw métier tailleur moom dafa jafe torop sax moo tax ku yàkkam ci moom. doo ko képp ku koy def. day laaj patience bu baax sax waaw parce que xaalis bi bariwul ba pare metti na coono yu bari na mais nag bëgg-bëgg gi daal moo ci am solo nit moom bu fekkee da ngaa bëgg di liggéeyal nit mooy kontaan force nga sonn ci waaw ñu bëgg gi daal moo ñu ci bàyyi ba heure bi waaw macha allah jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Thiam loolu am na solo di jaajëfalaat bu baax a baax mboolem ñi nga xamante ne sëriñ ñooy wéy di ànd ak seen site bu mag bi di waar wi TV di jaajëfal baax sëriñ Bassirou Sylla bi nga xam ne moo nekkee ci technique bi di nuyu mbooleem auditeurs ak auditrices yi waaye mën a nekk rek jamono ji ñu àddoo ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom mu defal leen tawféex euh, tey jii ñu gis ni en tant que euh, patron de métier mu mm-hmm. mel ni euh, ku ñëw ci place bi xam ni vraiment métier mi am na fu am na yitte joo ko jox mm-hmm. te am na loo xamante ne si xam nga ko ci ci njëkkanteeg waxtu wi rek ndax xam naa waxtu dana xat Euh, tey dañuy gis ni léeg-léeg euh, Sénégal day am ñoo xamante ni jóge fii di dem ba à l'extérieur di fa dem di fa ñawlu ji. ndax dañuy gis ni ñooñu ñoonu ndax ka ñaw wala lan moo waral loolu. waaw loolu tamit xam nga nit ku nekk ak ki nga choisir mu la ñaw parce que man am naa sama client yoo xam si ñu ngi ba Europe. Europe waaw dañ may yónnee fi seen ñaw ma leen ñawal. Mm-hmm. waaw ku ci mel nii Julle Fall maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñu ngi ba Europe moom jëkkëram. Mm-hmm. maanaam lu ni ñaw la man leen yónnee fii ma ñawal même Mauritanie. am na sama yoo xam ne si Mauritanie leen nekk. macha allah chaque événement dañuy yónnee fii ma xotti leen ñawal leen. Mm-hmm. parce que man maa leen dooy sama loxo moo leen doy. Mm-hmm. waaw noonu la fa demee nag ku nekk ak ki doy rek ak ku nekk fa ngay sentir li ngay sol. Mm-hmm. waaw loolu la fa demee rek. kon daal ñu gis ni maanaam daal ci gàttal mooy lépp loo xamante ne si waaye mu koy jëlee jóge jóge fii di dem di ko sàkku ji Europe. ci ah. wàllu ñaw bi moom yaakaar naa Sénégal. moom am na fi moom parce que Sénégal moom bu dee ñaw moom. fi ah. la dëppee moom. surtout Touba gii nag. Touba gi ma wax dëgg yàlla boo fi ne ay jàmbaar dëgg la. Mm-hmm. problème bi mooy fit bi moo xaw des rek parce que am na yoo xam ne si nii ñoom duñ jéem a jël risque bi. Mm-hmm. comme di defar seen place yi mu rafet wala ñuy mm-hmm. créer ay défilé mode. comme ñun xam nga ñun créer nañ fi défilé mode boo xam si ni tabaski daaw la woon. tabaski daaw ñun ñoo ko doon def. ngeen ko créer fii waaw ñun ñoo ko def ñun ñoo ko njëkk def fii Mbàkke. théâtre de waaye bas mi yëgoon na ko. ñun ñoo ko def même ren sax naroon nañ ko def mais temps bi moo xat. ñoom dañuy dem Thiès di fa def ay défilé Thiès dem nañ fa ñaari yoon def fa défilé. Mm-hmm. jël nañ fa trophée ñaari yoon Thiès. waaw waaw yooyu mel noonu nag booy force ñu am fit di parce que mm-hmm. métier fi nga yem rek foofu nga ko mm-hmm. boo ko fa foofu la yem force nga koy jéem a génne muy génn. waaw loolu moom su ma sañoon booy jël ko di ko def. di ko waaw di ko bàyyi xel. ku wax métier sa xel dina dem ci yenn jafe-jafe yi te jii kenn ku nekk xam na ni. métier yi juste nag rawatina métier am tailleur des fois ngeen dund ay jafe-jafe pire yoo xamante si faral di am. non mënu cee parce que jigéen ñi moom yaa ma gën xam. waaw ah. xam nga jigéen moom doo defee waar. <laughs> yenn saa yi nga ñawal nit. Hmm. du ko jël si sax yenn saa nga ñawal nit mun la dama ko soxla tel temps nga ñaw ko par teg ko du du ko jël si nga jël ko jël hmm. Hmm. wala nga ñawal nit ba pare. mu dikk ni la dama koo soxla jox ma ko nangam nangam te doo ko mën a gàntu. nga jël sa xaalis def ci. xam nga yooyu tamit ay jafe-jafe la mais tamit. mënul ñàkk parce que ñun ñoom ñoo far Mm-hmm. waaw yooyu moom day am mm-hmm. ak yenn saa yi nga ñawal nit ba pare mu ñëw ni la waxuma la woon lii lii laa la woon affaire yooyu xam nga jigéen daal mooy loolu mm-hmm. mais bu dee góor ñi ne mu amul problème moom léegi tey léegi des fois damay dégg ñu naan dañuy jël sa xaalis encaissé ko ba pare xam nga duñ la ñawal nga ñëw ñu naa la xaaral tey ëllëg xaaral tey. man moom du ma def loolu sama bopp laa xam man moom ku ma mm-hmm. encaisse sa xaalis dinaa la ñawal incha mm-hmm. Mm-hmm. man moom ku ma encaisse sa soo yàlla dinaa la ñawal. waaw. allah loolu am na solo di jaajëfalaat encore une fois mboolem ñi nga xamante ne ñooy wéy di ñu topp ci site bu mag bi di waar wi TV. di jaajëfal ñi nga xamante ne rek saa su nekk ñu ngi wéy di ànd ak ñun nee naa la wéy leen di ànd ak ñun fii ci waar wi TV. ay programme yu bees tàq lay doon fii rek lay amee incha allah rabi saa su ne ngeen koy wéy di ko ànd ak ñun ñu leen di ci bégal incha allah rabi. Euh, tey jii ñu bëggoon a xam euh, en tant que Serigne ab Lahad maître de tailleur tey ñu gis ni tabaski korité événement yi bari na chaque événement ak modèle yi nga xamante ne si mooy génn yéen en tant que yéen naka ngeen di def bay pirater modèle yi nga xamante si modèle yu bees la da ngeen di am ay ñu leen koy jàngal wala ay catalogue lay doon mu demee noonu. créer rek parce que tamit métier mi mooy li ma la wax sànq uh-huh. xel moo koy def uh-huh. force mu laaj nga tëdd di xalaat uh-huh. nga toog di wéet di xalaat te créer la boo bëggee kere moom force ngay def loolu parce que métier mi chaque jour chaque jour ak li xew maanaam du métier moo xam si ni dafay am benn place par exemple tey bu dee maçon xam nga di ngay nga tabax mais bu dee tailleur chaque jour modèle bu bees loolu moom day laaj nga nga intelligent am xel mu baax di xalaat ba nangoo di xalaat surtout di xalaat bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di wéen di xalaat. di génn ay modèles yu rafet. mais sinon rek doo jigéen génn woon. ay modèles yu góor modèles yu jigéen waaw ñun moom mm-hmm. dañu ñaw modèle góor modèle yu jigéen. yére tubaab yére olof yëpp dañ koy ñaw. même yére tubaab yeeg yëpp waaw même yére tubaab mm-hmm. macha allah euh, tey jii mu mel ni euh, tey en tant que yéen est-ce que amul tey jii comme yu mel ni yi ngeen di faral di euh, utiliser woo muy affaire yu médecine yeeg médecine yeeg xeet yu mel noonu. tey bu fekkoon am na message boo xam ne da koy lancé jëmee ko ñi nga xam mooy état bi. Mm. pour ak jàpp ndal ci wàllu métier bi yooyu est-ce que amul ay jafe-jafe yu ngeen ciy dund seen diggante xeet yooyu. waaw état bi moom am nañ ci jafe-jafe bu mag a mag a mag sax mm. parce que tamit mm. instant yi nii tailleur bi maanaam dañ koo ray ba mu dee. Mm-hmm. parce que da ngay bu njëkk da nga daan jàng métier di dawal 217 di dawal petit fil di dawal gros fil mm-hmm. mais léegi créé nañ ay machine ordinateur yoo xam ne seen mm-hmm. maanaam même yow mi jàngul ñaw sax. boo bëggee dugg ci ñaw rek ngay dugg ci ñaw. waaw parce machine yooyu dafa facile dafa yomb tey jii da am sa xaalis rek nga jënd sa machine ordinateur teg ku dikk nga dawal ko mu dem moo tax booy yu bari léegi nangatunoo jàng métier loolu daal su ma sañoon moom état bi jàppale ñu ci bu baax a baax a baax. Mm-hmm. ak bagage su chinois yi tamit. yaa gën a xam baati chinois yi da ngay mm-hmm. dawal sa baat ba mu rafet chinois dikk jël ko. yóbbu ko defaraat ko dikk di ko jaay lu loo xam si nii. Mm-hmm. li ngay dawalee moo koy gën a seer fuuf. ñoom ñu dikk bu fekkee da nga jaay deux mille. Mm-hmm. ñoom ñu jaay mille francs xam nga loolu tamit. day métti waaw day métti. te baaxul ci daal moom baaxul ci tailleur bi. sama mm-hmm. sañoon moom état bi gestu ñu ci bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. waaw loolu moom. macha allah loolu am na solo sëñ <laughs> Abdoulaye Thiam bu ko defee rek euh, xam naa jëmbul waxtu wi. Euh, liggéey bi xam naa ne xaw naa xat ak xeeti mel noonu. <laughs> waaw saa xam na trop tey jii ku bëgg na <laughs> ku bëgg na jot ci sëñ Abdoulaye Thiam tey fan ngay jaar est-ce que am ay. ay secrétaire wala ay comptable wala xeeti mel noonu. waaw man moom ku ma woo man ngay jot direct. directement waaw Abdoulaye Thiam. Mm. sama numéro 76 697. 98 65. maa ngi ci Mbaari Mariana centre commercial Sëñ Fall. Mm. boo ñëwee boo laajtee Abdoulaye Thiam bala may sa couture rek ñëwoon la ko incha allah. macha allah. jërëjëf sëriñ a Lahat kon xam naa dañuy daal di yamale foofu jotaay bi yëkkati ko <laughs> di la jaajëfal bu baax a baax di ñaanal mboole ñi nga xamante ne si rek ñooy tailleur yi xam naa jombul beneen yoon dinañ amaat ay yeneen plateau yoo xamante ne si rek yu gën a yaatu lay doon waaw incha allah tamit allah bi bari na loo bare bari yoo xamante si war nañ koo développé waaw xam nga instant bi moom temps bi dafa xat moo tax bi kiiwul mu ngi ci sant bu baax a baax di sant sëriñ Basiru si la bu mm. baax a baax moom itam wax dëgg yàlla nit jàmbaar la di ko ñaanal yàlla mu dem ba site bi ñu koy dégg fu nekk ci àdduna wala mu dem ba doon télé yu mag yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla defal di nuyu sama mbokk tailleur yëpp nag di leen wax ni góorgóorlu leen mhm. jàpp leen bu baax baax dina baax da ngeen jël lu ngeen mën a ñaw nag parce que mhm. clients yi dañ ba ci ñu bàyyi leen ci <laughs> jël lu ngeen mën a ñaw mhm. ñaw ko ba événement jotee seen ñëpp seen xol sedd mais bu ngeen jëlee lu ngeen mënul ñaw tamit mooy loolu di nuyu sama emprunté yi nag bu baax baax parce que tamit ñoom ñoo ci jàpp. Mm-hmm. parce que bu doon menn man rek dina xaw a metti mais mm-hmm. ñoom dañ ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. sama apprenti yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax. di nuyu sama ñaari waajur. di leen siyaare bu baax a baax baax di am contentement ci émission bi. macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Lahat jërëjëf am na mbégte bu baax a baax macha allah. jërëjëf mi ngi noonu kon mu nekkoon euh, seen euh, jotaay yu métier yi fii ci seen site bu mag bi di waar wi TV tey jii ñu doon ci dalal ki nga xamante ne mooy Serigne Abdou Lahat Thiam. maître Taire euh, nee naa la atelier bi mi ngi tudd Bala sax fii rek la nekkee ci mbaar yi Madiana yi boo ñëwee ba mbaari rek incha allah rabi centre commercial. bu Cheikh Mamadou Fadal mi ngi lay féete bu fekkee da ngaa jógee garage Darou Mouhty centre bi mu ngi lay féete sa loxo càmmoñ. boo jógee ancien garage ñëw ci mbaar yi centre bi mi ngi lay féete ci sa loxo ndejoor kon mu ngi noonu mu nekkoon seen mbokkum taalibe Ndiéna Thiam fii ci seen site bu mag bii di Waarwi TV. Euh, ca technique ba Serigne Bassirou Sylla ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mboolem auditeur auditrice yi jaageen jëf ba beneen yoon incha allah rabbi